am kontaante ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su ne ci jàngat làmb bàyyi ji li Père Birahim xam naa ne namoon ngeen Père loolu ndax namm bu ngeen ko namm rek namm naa ko bu ko raw ndax namm naa Père toog na des fois ma wax xaw ko sànni xeer ndax du ñàkk koor gi xam naa ni euh, moo ko jàppoon waaye sant yi moom xam naa ne incha allah ba tey daa mel ni mu ngi ci koor gi waaye xam naa ne lamb la añ yeeg yooyu xam naa ne moom biñ déggee ni ci jàmm xol bi sedd na jaay ma lay nuyuwaat bu baax Père Birahim namm la lool kontaan ci yow. waaw jërëjëf auzu billaahi mina sheytaani rajiim hmm. wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Hmm. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum barakaatu mbokki internet yëpp maa ngi leen di nuyu. Hmm. Euh, di leen baal wax di leen baal di ñaan sama kàddu yàlla fekk ci leen ci jàmm ñëpp ñu ñu seetaan. yàlla yal defal leen jàmm ak sutura ak bu baax. ku ci fekk am tiis yàlla ko yàlla teggi. ku ci am ñàkk yàlla na yàlla diisal say poos te mu lew doom mën ak. te ñuy lekk lu lew. di bàyyi lu ñu moomul. di lekk lu lew. yàlla nañ ko yàlla defal. koor gi ñu génn lépp luñ ci jàmm yàlla nañ ko yàlla nangul luñ ci juum yàlla nañ ko yàlla jégal. te yàlla nañu aqi koor Mm. ak ni ko Saalin Saal di waxe mm. ak koor li mu war def ci ñun ñi def ko ci doom aadama yi def ci ñu woor mm. ko yàlla def ci ñun amiin yaa rabbal aalamiin waaye woor ba pare am ci xiifu kese rek mm-hmm. ah yàlla ñu ci yàlla musal kon nag maa ngi nuyu bokk yaatonar yëpp mm-hmm. di del siwaat nag di toog ak sama doom sama xarit muy jili ma koy nuyu di nuyu Bachir mm-hmm. di nuyu Adama di nuy kàggu di ko ndokkeel ci bisam bu màgg bu tuut tànk boobu mu doon kii yàlla na ko ci yàlla def muy mag yàlla na ko yàlla def muy magul lislaam mag mu ànd ak wërsëg mag muy dundal lislaam jërëjëf kon nag maa ngi nuyu ñëpp daal tubaarkàlla jërëjëf Père Birahim euh, fan yi nag ñu ngi woon ci diggante euh, Joal ak Mbuur ak fi nga xamante ne mooy euh, nu tuddati fatik hmm. làmb nag moo fa amoon hmm. na dégg Nicolas moo ñu fa woon hmm. mise bi trois millions la waaye xale yi gisaat nañ beneen jàngat boo xamante ne xale yi def nañ ko. Hmm. ku mel ni Serigne Ndiaye de ñaari sorti la def jël ñaari. ci hmm. mel ni Franc ñaari sorti la def jël ñaari. Obali def na ay sorti am na ci yu mu ñàkk waaye am na ci yu mu jël ku ci mel ni euh, xale bi di Doudou Sané. Hmm. moom it oto bi tegoon. zoal moom moo ko jëloon. nan nga gisee xale yooyu nga xamante ne fu ñu tuddee làmb rek tudd lañ fa rawatina lutte traditionnelle. waa jërëjëf. subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal alimul hakim bon loolu li ma ci gis mooy ne ñu ngi ci yoon yoon woowu suñu ko wàccul di ko gën a yokk ak xam di gën a jàng seen i erreur ñu mosum ñooy moom làmb ji parce que seen génération boobu ñi nekk toj làmb ji fi mu ñooy da ñëw ca kanam te loolu ñuy def noonu maanaam njàng day am tari mm-hmm. ki yor àlluwa ji di jàng dafa am sëriñ bi dafa war a téyel ndax bind bi mokk na wala mokkul. Mhm. bind bi mokk na wala mokkul xam nga loo koy may. Mhm. ngay dem ci mbapare yi di wane sa bopp. dëgg la di daan di daanu di daan di daanu di daanu loo daanoo tey bu subaa nga moytu ko ci kii. Mhm. loo daane tey bu subaa nga jàngaat ci lii muy benn. ñaareel condition physique contact mënoo ko am sa entraînement. waaye ci biir compétition yi fa ngay amee comp fa ngay amee compétition. fa ngay am sa condition bëgg moo tax ñi nga xamee ne ñi tey jii ñu ngi koy def te bëgg bëri te toll ci bëri di ko bëri fu ñu dégg tournoi dem ñu ngi ci yoon bu baax maa ngi leen ci encouragé bu baax ne ñu gën a góorgóorlu ci loolu mooy li nga xam ne lii moo leen di jëme kanam ah de père man ma yaakaar mbër muy préparé combat ku ci mel ni franc le 9 juin la war a bëre waaw euh, moment bi ma yaakaar warul génn ci compétition yi di wane boppam mais le 9 juin léegi ñaata fan a fi dox ah, xaw naa bari de wala ñaata weer fi dox waaw bu matee weer chaque jour tournoi bu nekk bu dem am fa un million wala deux millions wala huit cent mille wala neuf cent mille mhm. wala deux millions wala trois millions yu manqué noonu mhm. loolu su ko dee am ba bis ba bisam day gën a neex di hmm. ah doole mi day gën a bëri préparation bi di gën a baax dina am condition dina am xaalis xel mi dina gën a dal te loolu bu ko ñett mbëri rek ñett mbër boo amee ñett yi rek na xaree daan hmm. am xaalis am condition am doole hmm. ah yetam fit fit ñëw te comparé ko parce que fit mooy lépp parce que mbër bu amul fit carrière bu sori waaye boo amee fit am xaalis am doole sa condition physique léegi sa lamb tam baax na. Hmm. léegi yaa ngi siraatul mustaqiim yaa ngi ci yoon wu jub bi. Hmm. ku nekk ci loolu. Hmm. xamal leen dina toji lamb ji man maa la wax lii. man ma yaakaar ni dama ko conseiller pour mu concentre wu ci bëre dóor bi mais yow bu doon yow la boo ko doon conseiller da koy wax mu gën di con compétir compétition am na. ko dama koy wax da continuer ci compétition yi. soo demee ba mu des quinze jours wala un mois wala mu des un jour nga dem préparer sa combat bëre dóor. nga dem resté jooju préparé ko defaru sa pare dégg wala quinze jours rek quinze jours wala vingt jours rek bu ci desee hmm. arrêté arrêté entraînement yooyu ñëw préparé sa combat bëri dóor soo bëree pare bu lëndi ba jotee foo dégg tournoi deux millions trois millions demal parce que doole ji du la fi xaar temps bi du la fi xaar bis yi doon màgg ndaw gi du la fi xaar hmm. ñun ñi màgget toog yi rajo nga xam tey rajo la yor di wax ni wala micro la wax hmm. dëgg la di toog man saa yu ma saa taxaw ci ma bu ma daalul dix wala cinq wala quatre ba may ñibbi damay mer. du tudd mm. kenn. Mm. te mbaykat ca buun tey bu dëgg la jëmboor yi ah, am na waa juy wax jëmbeelu daan si mm. bu dee ñëw fekk ñu bëri bu ma saa dem mbapat su ma daanee benn wala ñaar la am mbapat mi tas damay mer bu may ñibbi. Mm-hmm. te léegi mënatuma ko. kon ñoom ñu ci tool di leen bëree te boobu daaw ma ci am dara. Mm-hmm. dara paas sax doo ko am yaay dox. Mm-hmm. damay dox diggante buun ak Malika di dox diggante Kër Massar ak buun di diggante bi Malika caaray kaw caaray kaw dama naan doxe caaray kaw ba toppatoo ba buun. Mm-hmm. waaye trois heures waaye quatre heures du matin. te daawoo ci am dara waxtu waxatuma la nag saa yoo bëree boo dee ba final am dara demi final rek boo fa am dara. Mm-hmm. kon booy continuer ñi te itam ba jéeli maa ngi lay wax leen ñi koy def dinañu avantage ñi ko dul def. mbër yooyu. waaw la wax lii per ci loolu sax laa bëgg ñu ñëw ci. ci ñi koy def dinañ ëpp avantage ñu ko dul def. boo xoolee Serigne Ndiaye am na combat diggante mu Sokosim. waaw boo xoolee général Malika. mu hmm. ngi ci compétition yi am na combat diggante ak Fils de Balla. boo xoolee Franc am na combat diggante ak Tyson 2. waaw yeneen mbër yi maanaam ñi ci ëpp ci compétition yi ku ci nekk yaa ngi préparer sa combat. Hmm. seen adversaire yooyu nan la ñu war a def. def ni ñoom rek adversaire dañoo war def ni ñoom ñu deful ni ñoom. bu bis baa day feeñ te di nga ne Père Birahim waxoon na ma ko. bu ñu dajee ci bëre simple mu daan la nag. Ah, bu ñu dajee ci bëre dara newu ci. bis hmm. loolu beneen bis la. Hmm. beneen bis la tey bëre simple lañ daje nga daan ma fii. Hmm. te ñoo ngi war a bëri arène. loolu beneen bis la. du tax ki la daan gën a am confiance ah mën naa waaye yow bi ko daan man boo boo ko xeebee ne kii daanoon naa ko boo ñëwee dama koy daanal mbett ñëw na ci yow. booba mbett mu rëy dal na la parce que la nga ko daane woon tey bu ko jàngaatee dootoo ko ci daan. su xam nga fi xam naa bu baax fi ma bëri yow nga daan ma ci benn affaire bu ñu jël waatee bu ma amee xel dootoo ma ci daan leneen nga may mën a daane waaye doo mën a daane ci loolu parce loolu defoon na erreur bi nga daan ma li ma ñëw xool ne xam na erreur bii la ma daane ma teg galaaj yi fële teg téere yi fële teg bitéel yi fële daal ne man mi maa def erreur bi ma defee nii moo la waa ji def nii waaye su ma defoon nii du am lii mhm. suñu fa dajaatee doo ma daan ah, waaw loolu ah. père ñu ñëwaat ci benn xale bi di Serigne Ndiaye waaw Euh, compétition bi dafa am ci mbuur ah. gannaaw loolu euh, toog na lu yàgg bi mu bëree franc arène nationale hmm. franc daan ko hmm. mu am ci benn blessure ñu hmm. waat mbuur waaye bi muy ñëw dañu gis ni dafa tardé tardé na ñëw takkul gàllaaj deful dara daa ñëw rek ñu rappel ko mu ngemb bëre premier combat am daan mu mel ni kon confiance bi nga xamante ne xale bi mu ngi koy dégager keroog ñëw na wane boppam kon li nga doon wax naan gàllaaj yi day complété rek mais bi mu ñëwee wane na boppam noonu nga ko gisee tardé bi ak bi mu ñëwee. premier waaw tardé moom loolu moom ça arrive quoi xam nga boo waree teel a dem da boo waree teel a jóg da ngay a jóg. Mm-hmm. su ma waree xëy huit heures ah. Mm. sept heures dama fekk ci yoon bi. loolu mooy yoon su fekkee ne bind bi trois la yem man de te xoolal trois la yem. Mm. dina fekk ne man deux heures dina ma loolu mooy yoon waaye boo taalee loolu dara loolu moom ça arrive hmm. tardé moom nit ku nekk dina koy def ba dëkk caa bon nag hmm. fu ñu dem nga mujj tardé loolu lu mu mën a doon lu ñu boole saa yooy dem yaay mujj yaay mujj ci tardé loolu moom baaxul ci nit hmm. ba ñëpp xamee la ko it tappal étiquette ak ko waaye day tardé jili moom du ñëw heure loolu moom musiba la ci fa ngay liggéeyee musiba la ci fa nga dëkk musiba la ci la nga bokk dëgg la loolu moom loolu moom gor su nekk war nga ko def contrat bi nga xam ne signé nga ko dee ko appliqué buñ nee nangam del teew. Hmm. saa yi ne trois heures trois heures mooy cinq na ma fekk ci bunt ba. Hmm. loolu mooy yoon. Hmm. wala mooy dix. waaye loolu mu def noonu baax na et encore xale yi suñu bëggee mën a bëre. Euh, jili da nga leen di wàññiloo gàllaaj gis nga maa ngi waxtaan ak sama mbokk yi nga xam ne dañu war ay kër ay école de lutte yi ak écrit xale yi suñu bëggee mën a bëri àgg fa ñu bëri ak wàññiloo leen téere yi téere yeeg butéel yu bëri yeeg gàllaaj yu bëri jox leen xam-xam ko ëpp doole mais fii da gis koo xam ne kii day yor mbooloo te xamul dara mësta bëre mësta mbappat mësta arène mhm. jaaroo ci mbappat jaaroo ci arène noo koy jàngalee laa xamul ah laaj naa la yéen ñi seetaan tamit laaj naa leen ki nga xam ne yow mësta takk ngeen mosula foye mosula mbappat mosula arène mosu ko sax foye tey ubbi école day jàngal ay xale day di jàngal bëre kooku mhm. erreur waa ji fu mu ko xamee nan la koy mën a nekk fi nga jóomee nii lu ci bëri xamul ñu lay wutal ay noon di wala def nii di wala def nii fi nga jaar wala fi war a jaar bunt bi nga war a jaar ak nanga wii nga yor ak nanga loolu lañ lay këbloo rek loolu rek lañ lay waaye ki taxaw ki mën a bëri moo la naan erreur bii nga def mm-hmm. tey jii bi nga waa ji defee nii nii nga waroon def loolu xam la ki mën a bëri rek la koy wan Franc kum ci jàpp benn mënin bi am na foor boo xam ne comme ci jàpp da lay dëbb naax waaw ah. plaqué la dëbb naax talaake boobu nag primo am na kàttan gi ñaareel bi ñi dëbb naax xamuñu ni ñu koy dindee parce que naax bu ñu la ko dëbbee maanaam naax ñaari loxo la. Mhm. ñaari loxo mooy mu dëbb naax. Mhm. mais de loolu dëbb sol la. ah dëbb waaw dafa dëbb lu benn loxo bi. moo dem loxo bi moo dem ca poqataan jërëjëf Fer Birahim mais ñaari loxo bu demee. loolu mooy loolu loolu mooy dëbb naax. Mhm. waaw mais ñaari loxo bu duggee. éliminer benn bële rek. dëgg la. waaye nag dafa am nooy koy crochet ak nooy wàcce ak tànk boo war a déplacé. du ci mën ci yow dara. man koo mos a dëbb sol dama yàggale ko Mbita Ndiaye maa ngi koy nuyu de passage trop pied droit bu ay la woon saa yu ne bëxër ñett tëbata damay àggal sama loxo ne ci yéex ngembali ne tekk di ko def su ma ëññee rek ma teex ko. Mhm. ma ma suli wax wi. loolu nag xam-xam la li may wax nag loolu nag du wax lu wax bu ñuy wax saa ne xam-xam la. Mhm. te yooyu yëpp tey jii bu fekkoon dañoo am plateau boo xam ne bii maanaam terrain ba nga xam na ngay sol blouson wala sol blouson taxaw mën koo wane. ci mhm. nga koy mën a wane ne kii ku def nii nii ngay def. waaye am na ci loo xam ne mën nga ko wax ci plateau mën nga ko ci rajo bi mën nga ko wax ci télé bi yi ñëpp seetaan mais euh, wane ko niñ ko war a defee yombul parce que wax rek nga cay man hmm. waaye bëri boobu daalu ndaanaan hmm. ndaanaan daal xam nga ko mën a bett hmm. paqueté bu gaaw yaa ngi may wax euh, jarbaatu Fall daal jarbaatu Ama Baldé boobu xale boobu nga may wan léegi xale bu ndaw la ndeysaan xale bi boobu waaye sa Pape lay nuyu xaw ma nu mu tudd ma ko mosuma gis bu ndaw la waaye li mu wax ne ma xale la ne ma ko bëgg yàlla te am na kàttan borom yàlla te ku bëgg yàlla yàlla nañ fi deegi bàyyi yàlla nañ fekkete yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér hmm. yàlla na ko fi yàlla bàyyi bàyyi ñu fi hmm. di nga ne masa masa toog ak bi père Birahim ni masa ñoo toog moo xam ne ma kii mbër la gis nga loolu muy def noonu hmm. salaamaaleykum mën a coppet sab tànk billaay ponkal xajul ci yàlla te gis nga noonu muy fooy noonu doon ndaw billaay walaay tey di nga ne père dina masa ubbi làmb man maa la xale boobu. ah yetam xale loolu loolu mooy njàngum bëre. loolu mooy alphabet mooy A B E F bi. da nga koy jàng dangay ngay jàng nu ñuy song ak nu ñuy rasoo. rasu dafa am yoon song dafa am yoon lu ci ne boo koy def da nga dafa am nu ñu koy defee. Hmm. soo xamul nañu koy defee jël bu rek ngay daanu. bu ma gisee muy génn kër gi. ni muy sotteekoo saafara si ni muy ñaanee. waaw nga xam ne mbër mu mag la jàppee bopp. waaw ah, parce xamul ko waral. Uh-huh. parce que nijaay mbër la am. seen kër dañuy dund làmb ca ca maami maamaatam jarbaatu Walaay Jëne kon moo ko jur ñu ne Falaay Balde Balde mhm. Fodé mhm. ñoom Demba yow ñoom Dembaak mhm. ñoom ñoom Jules Balde maa ko nuyu Balde ñoom Papa Balde ak ay xale lañu ñi ma lay wax ñooñu seen baayam lañu daan àndal ñooñu kii Falaay Balde lañu daan àndal ñun dañu man damaa nekk xale di seetaan ñooñu mu ñu parce que bien que man Falaye Baldé sax seetaanuma combat yu bëri. Mhm. ay cinq ay combat si ay combat cinq six yooyu laa ci seetaan. Mhm. waaw mais yàgg naa ko déglu mu nekk ba muy daan euh, ba ko euh, kii fi awali ubali ba kenn mënu ci moom garab ba booy ñàkk di daan ca mhm. la. xam nga loolu booba yéen ñii juddu leen. ndeysaan dëgg la waaw euh, mais xale boobu na nga ko bàyyi xel nag. maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér nag. seetaanan. ndeysaan loolu am jàng de. jàng de waaw nga ñëw waaw. Euh, père ñu ñëw ci ki nga xamante ni mooy Franc. waaw sonal na génération am rawatina mbër yu mag ñi nga xamante ni ñoom lay bokkal géew gi muy laal ak boo xoolee diggante ma euh, général Malika dajawaat nañ mu daan ko. diggante ma Serigne Ndiaye moom mujj ci kawam. waaw diggante ma ak yeneen daanaan yi nga xam ne ay duudu saaneeg ñu mel noonu. waaw Franc ci jàpp dalay daan léegi ñoom ci xel Franc daf leen mën. wala liñ ko cër biñ ko jox dafa ëpp ci làmb non gisuma cër bi gisuma loolu dafa Franc dafa di ndaw ba pare am kàttan mhm. tubaarkàlla maa na kàttan am na mënin mhm. ah dafa am mënin mënin boobu muy daane gars yi nag ko ci jàngul doo ko daan te ku mu ci la dëgg la xam la wax mhm. leeru la leer na dama ne dafa am mënin am na mënin boo xam ne foog la la koy imposer def la ko la force mu def la ko kenn mënu cee gaar ba dëbb la sol mu laal la wër la ndomba takk la dóor ci suuf loolu kenn mënu ko cee bañ koo ci bañ tamit ba sa loxo dugg ci poqataan dafa am noo war a def dafa war a am def loxo boobu dugg ci poqataan. Hmm. parce que général bu Malika champion bu toll ni moom tey jii boo ko xoolee tey jii benn mbër waru koo tegale ñaar yoon ci ci benn benn champion waru koo daan tey ñu wax mu daanaat ko daanaat ko du yoon. Hmm. ci ko a ub général Malika. waaw waaw gis naa mm-hmm. ko gis naa daay bi. Mm-hmm. gis naa ko. te yor na ndox tu bëre bi. dama ne ku ko xool dama ne. Mm-hmm. dama ne mbokkul waaye nag am lu des. xam nga tout temps mu am na lu des. parce que champion waroo koo daan ci benn feem daanaat ko ca daanaat ko ca léegi kon am dëgg la yéen ñii xam nga li ma wax. kon général loolu bàyyi ci xel. na bàyyi xel jàng loolu moo na jàng li ñu koy daane. li ñu koy daane su ma jaaree fii tey fakkastalu jaarat fi fakkastalu bu subaa moo xëyee du ma teggi tànk Mhm. yor naa oto gis fii doy na doo daan mbëkk ba station ba station bi daal suuf. Mhm. ma ñëw jaaral fa daj. bu quartier bu tajee ma mhm. wala jaar naa fi dal ma jaar fi dal su ma ñëw war na maa retrogradé teggi tànk. xam ne fii ma jaar du yoon. yéeg ndànk wàcc yéeg ndànk wàcc ndànk. loolu mooy bëri. bëri numéro bu la daane ci benn affaire tegal téere yi fa tegal galaaj yi fële xam nga looy def. donc science nag kii lan la ma daane. te gis nga loolu foog nga moom it nga génn sa wax nga wax sa xalaat mu wax sama xalaatam ngeen jàng ko. bu la général woowoon téléphone léegi na la damaa bëgg fi nga nekk ma fekk la fa Père Birahim nga wax ma franc bu ma solatee wala bu ma. non bu ma tuddul franc sax nee na ma père nii. lii ah. moo daan damaa bëgg dindi loolu waaye bu ma nee franc wala dindi kenn dafa mel damay xeex franc. Ah. wala damay xeex kenn wala damay xeex te man du ma xeex kenn. parce que ñëpp samay doom lañu. dëgg la. lekkuma ci dërëmu kenn kenn ni leen yàlla suturaal noonu la ma yàlla suturaale mhm. yaa ngi dégg li ma la mhm. kon waaye dama ne ko ci am lu jaaxal ci biir bëre nga ñëw ba ci man mu jaral dérange ne ma papa man de dafa am lu ma jaaxal ci biir sama bëre mhm. loo xam ne dañ ko dama koy def ñu dama ci daan ma bëggoon laa gis dégg nga tam lii nu may def ba génn ci may la ñëwal Père Birame ubbil dama naa la la bunt bi ñëwal boo hmm. la dërëm ne ma laaj ma sax ma hmm. naa la ko la booy lii nga def loo tax ñu doon ci daan waaye bis boo defee nii la daan wala déet. mbëri kon bi yoon samay booy ñu ngi may dégg. Hmm. maa ngi koy wax ci rajo ngeen déglu ma. dama leen ne képp koo ci xam ne kii tey jii ñëw nga jige ma. fajar nga ñëw ma teg la ci yoon nga teg ñu entraîné condition bi baax may la bëril ma lii soo daanoo nga bëri la ma la bëri loolaa wax de soo daanoo kenn daanoo maa daanoo parce que maa la sant loo xam ne la mu ko defee da ngaa daanu waaye nga ànd ak fit ak jom laa wax parce que man ñaanu waajur laa lay jiital. Mhm. fexeel ba sa yaay kontaan sa papa kontaan nga laaj googu. parce que gone gu ciy dem di wuti ndam di wuti dara tamit amoo ngërëmal waajur it ak loo xam ne doo daan. doo daan tey suba mhm. waajur moo jiitu lépp. Mhm. yaa ngi dégg nga ñëw nag entraîné boo woo ba mel ni bant bii ba mel ni weñ gii woo koŋ. entre condition bu dëgër léegi nag ñu teg waaj. may la man lii laa la sant boyal mbokk yi ngay bëreel bëreel ma mm-hmm. lii. Mm-hmm. loolu bëreel loolu boobaa xoolal booy ñëw yat. Mm-hmm. boo ci boo li ma boo ko santee. boo ci daanoo booy ñëw wutalu yat mbokk yi kon loolu ngeen dégg Père Birahim ah. wax ko. mbi numéro Père Birahim day jaaraat ci suuf. Ah. ngir tay bi yoon mbëri laa koy jox. Ah. ñu woo Père Birahim képp koo xamante ni euh, soxla nga conseil per Birahim soxla nga ci li nga xamante ni yàlla suñu borom may na ko ci làmb mu defal la ko. nga ñëw waxtaan ak moom mu ñëw père damay ñëwaat ci beneen combat. Ah. mooy dafa gis dama gis ñaar ñoo xamante ni làmb li traditionnel ñëpp nee nañ folo ma gis keroog ci mbuur ah, euh, kii di euh, nu mu tudd di Doudou sànne dugg si ci làmb ji ñoo samp ci meekaayam nekk ci komba bi bay waaj a préparé jékki-jékki gis Obali dugg si mm-hmm. Obali bi mu dugg see ba teg ci meekaayam gisul woon Doudou Sané da koo gis rek jëlaat ci meekaayam génn làmb ji dem. waaw ndax nee na ñoom ñaar du ñu bëree ndax ñoo bokk dëkk. Hmm. est-ce que loolu làmb actuellement soxla na loolu. waaw mais mën na nekk mën na nekk parce que bu fekkee damaa bëri kii te am naa colère moom te mbokk mu sës ci man la te ñoo bokk dëkk. Hmm. te bëgguma bëri ak moom te làmb mën nañoo boole. Hmm. mu yàq lu bari sama diggante yow ma dem ñibbi. ma te ba bañ a takk sama ngemb moom comme ngemb na ba pare. ma bañ ngemb. wala su ëllëgee moom boo fekkee ci ngemb fekk ma ngemb ah ma ma a ngemb. maanaam ñoom ñaar daal waruñu bokkandoo benn géew nañ ba pare kay ba ñëw ci làmb ji mm. waaye bi ma ñëwee fekk ko fi fekk ko fi koo xamante bëggoo bëri moom mm. bàyyi làmb ji dem moo gën ngeen di combine waaw na nga ci parce que moo gën mu combine la moo gën mu combine dem ba ci biir ñëpp yaakaar nañuy bëri ñuy nax nit ñi combine mm-hmm. ay war la nañu ko wax borom bi taal ko dafa ñu wax ci tu Yusufa dafa man yàlla duma ànd ak ñu war ji képp kuy war nag ndox gisal fa war mujj mm-hmm. boo ci waroon am étage bu toll nii étage bii ngeen toog nii. Hmm. bu lépp doon jamaa la wax te nga am ko ci ay woro ki tappale ki fen ak riba day daanu lépp. dëgg la Ndiaye. kon moytu riba moytu ko man moytu ko sama ñi may dégloo ñi may seetaan ñëpp. Hmm. ak àq àq mooy riba rek. Hmm. yaa ngi dégg. waaw sànq nag am na loo xam ne bëgg naa la ko wax tamit internet yi déglu ma ci. mooy li ma wax nii ne koo ci am jaaxle ci sa bëre. am lu lay torof la am gàcce yu ci am nga boo ma seet boo ma wooyee laaj ma lu ci sa xalaat naa la wan ne la lii la nga wan ma li nga lay daanee mm. naa ne lii de moo lay daan lii boo ko moytoo lii dootu dootuñu la ci daan mm. xaw ma leen lañ lay daane waaye du loolu mm. waaye tekkiwul ne nag damaa bëgg ku ñëw ci man wala ku mm-hmm. bëgg a bàyyi écrit boo xam ne sa écrit pour ñëw ci man pour jege sa déedéet ku ci nekk toogal fa nga toog jàppal sa écrit bul wor toogal fa nga toog dëkkal fa nga dëkk warloo ma kenn woowu ma kenn xëccu ma kenn pour mu ñëw ànd ak man dëgg la waaye comme màggetu mbër laa maa ngi ñaan ci yàlla kàttanu wér nga laaj ma ci loolu daal ci tontu mooy ñaanew ma kenn xam-xam bi dëgg la am na champion yoo xam ne tey tuutee leen téye mm-hmm. su ñu dajee ku leen teg ci yoon rek dootuñu leen daan la waaw xam nga général Malika moom boo ko xoolee champion bu toll ni moom tey mm-hmm. war ñu koy tegal di ko daanal am na yeneen boy ci yoo xam ne gis naa leen ci làmb ji ni mm-hmm. obali moom nga gis champion la la dégg li ma la am na benn vidéo bu ñu ma yónnee nii naa la ko wan damaa xamul ñan la mais kooku soo ko xoolee xam naa dinañ ko mos a war ci tableau bi ñu wane ko. daanaka hmm. woon bu ñu hmm. defee ko daan lu yomb la. te dafa sunu waa ko fop hmm. foo ko ba ñëpp dafa doon la bu daan ñu daan ko jël boo xam ne bii ñëpp dar seen gémmiñ te loolu lépp tële la. dinaa la woon fa mu tëlee ak la ko doon la daan. dinañ ci ñëw incha allah xam naa ci kanam yàlla nañu yàlla may fekk tal jërëjëf ah Père Birahim waxtaan bi am na solo macha allah may ñaanal rek gudd fan ak wér. Euh, di la di la jaajëfalaat bu baax di la tàggu ci tàggoo bi dul tàqali ko tey looy tàggoo. waaw di kontaan rek di nuy internet yi ñuy seetaan yëpp nag di ci gërëm biram ndaw ndooy sama xarit sama soppe. Mhm. ak soxnaam ami mhm. di nuyu Falil Diop. Mhm. di nuyu Xaadim Sey. di waaw waa wasaare ñëpp nag. di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo Pape Konaté. mu joxal ma ko Moustapha Jamil waaw ah, mu hmm. weesaareel moo ko ci waa waa sàppe yi waa les sages yëpp nag hmm, hmm. maa ngi nuyal ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan kori gi ñu génn yàlla bu suñu mujj kori yàlla nañ ko fekkee te weesu ko waaw di gërëm Moussa Alioune Sall bu baax ak Mbacké Sall Mbacke Sylla Mbacke Sylla. Mbacke Sylla ak euh, Amadou ak Alioune Mbaye. Alioune ak Oustaz Seck ñoom ñëpp maa ngi leen nuy samay Oustaz yi nit ñu baax lañu. dëgg la te damay jàng ci ñoom di lu bëree bari dëgg nit nag boo fekkee da nga am koo koo xam ne yaa ngi nekk ak moom. Mhm. muy defar sa te yaa ngi yaakaar ci moom àllaaxira moom. Mhm. demaguñu fa waaye yàlla na yéex waaye. ñu ngi lay teg ci yoon boo xam ne boo jaaree mën ngaa rafet jot foofa. dëgg la kooku foo julee war nga ko ñaanal. la moo tax Saliou Sall fu ma julee maa ngi koy ñaanal. dëgg la di ñaanal yéen ñi ma bokkal mbir mi nag it ngeen mm-hmm. di samay doom di samay sët di sama lépp mm-hmm. yàlla na yàlla suqali kër gi amiin yaa rabbal aalamiin yii muy wasaare yàlla na ko yàlla suqali ba borom kër gi mm-hmm. muy Babacar waaw dégg lépp lu mu soxla ci kër gi ci seen système bi yàlla nga am am lu raw jortam. amiin a rabbal jërëjëf kon nag jërëjëf maa ngi nuyu nag ah, ak ah, kii nu mu am na sama benn xarit bu ñuy wax commissaire euh, Malick Diouf. commissaire commissaire Malick. Mm-hmm. ku xam làmb la ku mën a bëri la. ndeysaan moom kay bu takkul woon tëni. Mm-hmm. bu yoru woon tëni. Mm-hmm. dama eh, dama fàtte turi papaam defe naa papaam la ko tuddee sax. waaw kooku sax woo ma keroog may génn fii ndeysaan. xale bu baax quoi. maa ngi koy nuyu de passage maa ngi nuyu. waa Europe yëpp daal. bàyyi ba kenn ak suñu soppe yi nga xam ne ñaan ma nuyul ma jiiri. ak ku mel kii Diop Euh, waa Gandiol booy bi dëkk Gandiol. Hmm. toujours dama yóbbatu nuyoo ci yow. ndeysaan ndeysaan bari nañu daal xam nga damaa université damay bind seen tur. day bari waaw ah, day maa ngi nuyu ñëpp daal. dëgg maa ngi nuyu ñëpp di xam Birame Ndaw Ndoye maa ngi lay nuyu di nag fu ma toll. barakatu hmm. rasul sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf jërëjëf. ñuy jaajëfal ñëpp Serigne maa ngi lay nuyu waaye tamit Serigne hmm. Kane. ndeysaan jërëjëf jërëjëf ñuy jaajëfalaat per Birahim bu baax a baax a baax di kontaan ci moom ci bokk ak moom plateau bi ndax suñu papa waaye saa su ne yéen a ngi dégg conseils yi nga xamante ne mu ñu koy jox gi nga sànq bi ma ne mu dëbb ko naax mu wax ma naax ak sol duñu benn ah. lii nag la ñuy xaar ci ñi nga xamante ni ñooy suñu bàyyi jiituñu lool ci liggéey bi ñu koy jaajëfalaat bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér mbokk yi di leen jaajëfal di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba la incha allah ci beneen jàngat làmb jërë ngeen jëf.